atum jàmm ak salaam beneen bu ñu dugg bi di ñaan Sénégal jàmmam ñaanal sa njaboot ñaanal Sénégal yëpp li ma bëggoon laaj euh, dafa jëm ci mbirum artistes yi dañoo constaté que si mbas bi bu mu amee amoon nañu jafe-jafe ñu tëj lépp ñu toog ay weer weer ju dara euh, gédduñu liggéeyuñu euh, fan yi nag gouvernement bi génn na ay fonds dugal ci cinq milliards li ko li ko topp est-ce que loolu mun naa wéy. ak benn stratégie de mettre en place pour que bu mbas mi continuer parce que kenn xamul ka lay arrêté naka la ñu mën a téye ñooñu ci seen liggéey. jërëjëf Alassane ma lay nuyu bu baax di nuyu waa E-Media ak ITV euh, euh, artistes yi ak homme de culture ak femme de culture yi euh, bokk nañu si effectivement ñi nga xam ne mbas mi ñoom la gën a gaañ parce que yemul sax si ñoom ba si jàngukatu xasaayid taggkatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu doon nekk ay bâche wala ay cérémonie mbas mi ko arrêté parce que loolu lay bañ dajaloo donc am na ay conséquences yoo xam ne ñun xam nañu ko moo tax si njëlbéen ni ñu jàppale transporteurs yi jàppale ko secteur touristique la ñu yëkkati woon ñetti milliards jox ko artistes yi pour mu nekk ndimbal mais ça veut pas dire que mun na remplacer li ñu perte waaye fan yi bi mu jógee ñu ñu trente 31 bi

presque léegi seen capacité saturée ci wàllu euh, des lits chauds comme ni ñu koy waxee ci wàllu réanimation bu ñu amee tey cent quatre-vingt-quinze wax ngeen ko mais boo boo xësee am juróom-benn cas grave cent cas grave ça veut dire que boo moytul dañuy dañuy génn àdduna est-ce que nag def gagner sa daan sa doole aussi jar na loolu si sa njaboot si askan wi donc xam naa bu baax a baax jafe-jafe moo tax ma yëkkatiwaat nii loolu bokkul ci force Covid force Covid clôturé nañ ko mais nii fin d' année ma ne ministre de des finances génne ma deux milliards demi ñu joxaat ko artistes yi xool nag nuñ koy yaatale ba nga xam ne dana mën a yegg si ñoom waxuma ne dinañ ko def saa yu ne parce yàlla rek a xam kañ lay pare mais am naa xolu bàyyi xel liy dal askan wi ci section bu mën di doon. pour que ñu atténuer ñu wàññi jafe-jafe yi mais nag euh, ala kuliyaalin moom bu laajee tëj dañu tëj loolu moom amul sax ci kitak d'ailleurs dugal naa loi bu bees assemblée nationale loolu moo ko tax a jóg parce que xam nga état d'urgence dafa diis si si déggin dafa diis or comme fii mbirum feebar la war nañ mën aussi léeg-léeg di arrêter di tëj sans déclarer état d'urgence parce que tant que mu ngi nekk wàllu wér-gu-yaram wala wàllu catastrophe naturelle loolu la loi bu bees bi def day ñëw ci loi état d'urgence yokku si pour gestion feebar yi mbas wala beneen feebar bu garaaw bu laaj nit ñi toog seen kër yi autorité yi nañ ko war a mën a def ci diiru weer ba ci ñaari weer su ko naree passé nag il faut ñu dem ati woote état d'urgence dellu assemblée waaye nañu xam ne li ëpp solo bu ñëpp takkee masque éviter sa mboxloo bi xëy na du ñu yàgg foofu yëpp waaye buñ ko defulee à la kulia leen doo dem foo xam ne ni Europe tëjee ak àdduna bi dañ koy def parce que loolu rek mooy lii mën a tax ñu wàññi nit ñi faatu. merci beaucoup.